sëriñ Abdou Karim Mbacke sëriñ Abdou Karim Mbacke mi ngi gane àdduna ci atum 1916 ci dëkk bu ñuy wax Mbacke Kajoor di doomu cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ibnu sëriñ Touba Seexul Xaddiim ak ku ñuy wax soxna Seynabu Aydara mu ganee àdduna ci dëkk boobu di Mbacke Kajoor ci atum 1916 di doomu soxna Seynabu Aydara ak kii di cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke moom bi mu ganee àdduna ci atum 1916 ci dëkk boobu di Mbacke Kajoor waajuram cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ku baax ki sëriñ Touba Seexul seexul xaddim la ko yëgal ci njaareem seexul xaddim moo wax na itam nañ ko tudde abdul karim moom sëñ abdul karim mbàkke waajuram wu jigéen mooy soxna Seynabu Aydara moom sëriñ abdul moom nag am na ñu mbokkal kii di soxna Seynabu Aydara ñu mën cee ràññee soxna assu mbàkke bintu soxna Seynabu Aydara bintu cheikh Mouhamadou Lamine Baara mbàkke ak ku ñuy wax cheikh Mouhamadul Fadal mbàkke ibnu soxna Seynabu Aydara ibnu cheikh Mouhamadou Lamine Baara mbàkke ak seen mag ja ku ñuy wax soxna Aminata Lo mbàkke bintu soxna soxna ay Aydara bintu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke ak moom sëriñ abdul karim mbàkke ibnu soxna saynabu aydara ibnu cheikh mouhamadou lamine baara mbàkke kon nag ñett la bokkal waajur wu jigéen ak waajur wu góor ak moom muy ñeent waaye nag am na ñeneen ñum bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor ñu man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ mu laay faal ibnu soxna saynabu aydara ibnu sëriñ moodu seen faal ak ku ñuy wax soxna assu faal bintu soxna saynabu aydara bintu sëriñ moodu lakseen faal ak ku ñuy wax soxna mbuloo faal bintu soxna saynabu aydara bintu sëriñ moodu lakseen faal ñooñu ñooñu la bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor ak ñaar ñu bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen muy juróom ak moom mu juróom benn ñépp bintu ak ibnu soxna ay dara lañ sëriñ moo du Modou Laksane Fall moomu meññ ñi mu bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor doomu seen Fall la seen Fall nag doomu soxna Coro Jóob la mi meññ sëriñ la Coro ak sëriñ Cheikh Coro soxna Seynabou Aydara moomu nag meññ kii di sëriñ Abdou Karim bu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke tayba la soxna assu mbàkke kumba ba nag doomu soxna coro jóob la ak mammoor anta sali mbàkke ba tey soxna assu kumba tayba moomu mi meññ soxna seynabu aydara mi meññ sëriñ abdul karim mbàkke moo ku ñuy wax soxna xari mbàkke ñoo bokk waajur wu jigéen di soxna coro jóob ak waajuru góor di mammoor anta sali mbàkke soxna xari mbàkke moom nag lañ jébbaloon sëriñ mbàkke buso moo am ci sëriñ moodu buso ak ay rakkam ba tey soxna assu kumba tayba moomu mi meññ soxna seynabu aydara sëriñ abdul karim mbàkke mook sëriñ cheikh coro mbàkke Mbàkke bu Mamor Anta Sali Mbàkke ñoo bokk soxna Coro Jóob ak Mamor Anta Sali Mbàkke sëriñ Cheikh Coro Mbàkke itam rakku ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xadim la ndax ñoo bokk Mamor Anta Sali Mbàkke ba tey soxna Assu Kumba Tayba moomu mi meññi soxna ay dara mi meññi sëriñ Abdul Karim Mbàkke mook sëriñ Balla Coro mi nekkoon rakku ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xadim ñoo bokk soxna Coro Jóob kon soxna Seynabu Aydara mi meññi sëriñ Abdul Karim Mbàkke mbokkum sëriñ bi la ci wàllu gune ndax waajuroom jigéen rakku ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul woon seexul xaddim nijaayu soxna ay Aydara la doomu soxna Seynabu Aydara bii nag di sëriñ Abdul Karim Mbàkke ak Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke nag bi mu feeñee jamono ci atum 1916 waajuram Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke nag defoon na benn bayit ci moom di ko ñaanal moom sëriñ Abdul Karim moom comme nag ni mu ko defee ci mbooleem njabootam gi ndax kat Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ci njabootam gi bari nañu ci feeñ jamono mu jagleel leen ay bayit ngir di leen ñaanal fan wu gudd ak wërg yaram ak yaakaar jooju mu am ci leen tudde defee itam ci njabootam ni la ko defe ci cheikh abdul karim mbàkke ñu lu benn bayit bi cheikh du lamine baara mbàkke def ci sëriñ abdul karim mbàkke di ko ñaanal aw yiw akramu salli abadan xalal karimi wa fas bunayya rabbi xabdakal karimi sëriñ abdou karim mbàkke nag bi mu matee dal nag lii di alxuraanul karim waajuram ci mbàkke kajoor la ko dalale alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko yóbbu ci dëkk bu ñuy wax mbàkke njokk jox ko fa ku ñuy wax sëriñ muudu jaare géy bokkoon ci jàmbaar yi toppoon kii di cheikh mamadou lamine baara mbàkke moo ko jàngal lii di alxuraanul karim ginnaaw sëriñ Moodu Jaara Géej ci dëkk boobu di Mbàkke Njokk yóbbuwaatoon nañ ko nag ci dëkk bu ñu wax kër Moor Abdu ci ku ñuy wax sëriñ Moor Abdu Sëy mu wéel fa njàngum alxuraanam ak xam-xamam ci sëriñ Moor Abdu Sëy moomu ci kër Moor Abdu bi muy nekk ci daara jooju sax di kër sëriñ Moor Abdu ci loxoy sëriñ Moor Abdu Sëy mook doomu maam Ibrahima Faati bii ñuy wax sëriñ Muhammadan Koso ñoo fa nekk ndoowoon ak doomu Cheikh Masamba Mbàkke bii ñuy wax sëriñ Muhammadan Jobbe ginnaaw bu mu jàngee ba noppi nag la dil siwaat ci loxo loxoy waajuram ci mbàkke kajoor mu wéy nag nekk nag ci loxoy waajuram ci mbàkke kajoor ba ni waajuram génne àdduna ci atum 1936 ñu jël seen lépp nag jébbal seen mag ja di sëriñ Moodu Baara Mbàkke mi njëkk a wuutu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ci toogaayu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke boole koog nag nekk ci daara yim nekkoon di liggéey di mbàkke njokk googu amoon na daara yitim ci dëkk bu ñuy wax mbàkke baari ak faneen ak faneen fu amoon ay tool ak i daara di fa liggéey moom sëriñ Abdou Karim Mbàkke ibnu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke mi ci daara yooyu nag la nekk di liggéey lu fa ñor nag mu yit magam ja sëriñ Moodu Baara Mbàkke mi toog toogaayu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke nekk nag rakk ju dëggal ci ginnaaw magam ja ginnaaw sëriñ Moodu Baara Mbàkke nag mu jël léppam nag jébbal sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke mi nekk ñaareelu xalifa Cheikh du Lamine Baara Mbàkke def ko nu raw sax nam defoon magam ja sëriñ Moodu Baara Mbàkke ci ginnaaw sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke ay rakkam wala ay magam yim séqal Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke itam noonu la leen toppe woon ndax Lamine Baara Mbàkke rek mooy seen waajur mu bokkoon itam nag ci doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke yi gënoon a nekk mag ndax ginnaaw sëriñ Abdul Aziz Baara kat ci nekkinam sëriñ Abdou Karim Mbàkke mi kat moo magoon ci doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke yi kon moo toppoon ci sëriñ Abdul Aziz Baara ndax kat sëriñ Abdul Aziz Baara sax wax na ko ci ay jataay yi jataay di wax ne sëriñ Abdul Karim Mbàkke moo topp ci man mii ñu barkeelu nag ci kàdduy ci màggal gum ñëwoon di màggaluk Daarul Xuddoos keroog journaliste bii di Moustapha Mbàkke mi ngi ko doon laaj lan mooy sababu màggalug daarul xuddoos mu koy xamal na cheikh mamadul moustapha mbàkke kat mooy ki ko sos cheikh mamadul moustapha mbàkke nag da koo roy nag ca waajuróom wa xaadim rasuul ndax kat seexul xaadim ginnaaw bu mu jógee ci tukki bi toog ab diir joxoon na mag ñu ndigal nag ngir ñuy màggal màggalug fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar cheikh mamadul moustapha mbàkke itam ginnaaw bu mu wuutoo xaadim rasuul toog na ab diir itam jox nit ñi ndigal itam ñuy màggal bis bi seexul xaadim ñibbisee ci tuubaa mu ne am na bis sax ci tundóo di ku ñuy wax muudu Assé ñëwoon seet si Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke keroog Modou Assé moom mi ngi doon wax Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke yow yaa wax ne képp ku fanaan si ci màggalug Daarul Xuddoos suñ borom jéggal na la say bàkkaar Cheikh Mamadou Moustapha ne ko waaw maa ko wax kay maa ngi ko sukkandiku ci mbindum ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim yu bari yu mu bind ci lu mel noonu ci kàddu yooyu daal laa sukkandiku ne képp koo xam ne nii ñëw nga ci màggalug Daarul Xuddoos gi suñ borom dana la say bàkkaar ba nga mel ne kuy doog a ko wax ne cheikh Modou Moustapha keroog mi ngi wax Modou Assé ne sëriñ Touba xaddim nee na kenn ku ne na ngay dara jaale sëb sëriñ ni la la sëriñ boroom di sàmmeeka wormaale màggal yi nag day firndeel kenn ku ne na ngay dara jaale sëb sëriñ màggal yooyu nag day wéy nag ba ci bépp màggal lool moo tax itam nag cheikh Modou Moustapha yëkkati woon yooyu kàddu bi muy tàggutoo nag ak journaliste bi mi ngi sant nag bu baax a baax rakkam yooyu teewoon nag ca jataay ba ngir ànd ak moom ci màggaluk daarul xudduus googu ma ngay limaale itam nag doomi boppam ya ko njabootuk sëriñ abdul karim ndax boobu fekk na sëriñ abdul karim mbàkke génn àdduna cheikh baara mbàkke mii toog toogaayu sëriñ abdul karim mbàkke ma nga woon ca jataay ba sëriñ abdul aziz baara keroog mi ngi wax ginnaaw bu mu tuddee turu cheikh baara boobu mi ngi wax ne doomu sëriñ abdul karim mbàkke la mi toppoon ci man ñu teewlu kàdduy sëriñ abdul aziz baara yooyu ngir barkeelu ci mu bàyyi ko fii dem fekk sëñ Moustapha nag xam ne moo ko sosoon mu fekk fu ko wax mu di âgé mu di ko laaj moo ko dangaa wax buub ci dara warta tuut yàlla dana buub ci ayib loolu nag mu mu def dénkuwaane bi bu yaatu la ndax boo ne ma ko jëlee ci woy seen tubaay ci gën ku nekk mu yàgg la ab moom bu yàlla màggal li mu darajaal ab sëriñ bi moom bu yàlla darajaalam lépp loo xam ne day ab taal mu bëgg moom ci daraja wala mu bëgg ci njëriñ àdduna laaxira na ko def sëriñ bi mu ko defee rek yàlla dana ko defal loola gannaaw loolu moo ne bis mi li nga xam ne moo ko moom ñu bari dañ koo xam ndax moo ne bis moo ne sëriñ Tuuba bàyyi ko woon ci géej gi ba lu yàgg door a santaane màggal boobu mu weesu di ko waat tabaskiyaat bu mu ko defee naa itam mu xam itam bi nga xam ne yàlla bàyyi na ko fi mu toog bu yàgg mu mu ba bu seen bàyyi ba mu toog bu yàgg mu santaane na nga koy na nga koy màggal nee na ko màggal gi itam nee na mu yaakaar ne bis bi nga xam ne ci la ci la tàmbali woon ab liggéeyam mu santaane ko mën nañu koy màggal ku am gàtt say ku ci ku bisu def ngir ngir màggale ko bis bi ku ci nekk loo ci mën ko def ko ci bis boobu yéen ñoo xam ne gannaaw bis boobu nag mën na santaane wala bis bi nga xam ne. fiir na ak borom xay dara jaxasoo gi borom di ko teral ci jëf ji mu jëfoon mooy nag kon jëf jooju war war war na képp koo xam ne di taalib nga wala nga def soppi wala nga ku ku bëgg lislaam soo sañee fekke bis ba ba barke lu ci ngan googu ñu ko ganale nee itam waxtu woo xam ne nit jóg na ngir moom te te te jaxasoo dara ngan googee lépp nañ ci lépp luñ ko ci defal dana ci ànd ci ngan googee ci àdduna ak àlaaxira gannaaw loolu nag ñi nga xam ne ñooy suñuy rekk ni ñoo nekk ni sëñ Bas sëñ Abdou Khadim ak sëñ Moustapha ak sëñ Cheikh Thioro ak sëñ Khadim ak Cheikh Baara moom sëñ ne moo suñu doom ñu ci des nag dañu am ay ay gàllankoor ba ak segum xam nga danañu wala wala doñu waaye ñun ñu fi teew kon nag maa ngi dénk maa ngi leen dénk ñoom ak taalibe yi ñu góorgóorlu ci magal gi ci bis bi ak bu ne bu fi bàyyi ko ñu bañ ko yemale ak dara te yooyu nag day firndeel ne bi fi sëriñ Abdul Mbacke bu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke di nekk moo toppoon ci ginnaaw magam ji sëriñ Abdul Aziz Baara ndax sëriñ Abdul Aziz Baara yëkkati na ko sax ci kàddu yooyu ñu leen doon dégtal topp googu mu toppoon ci ginnaaw sëriñ Abdul Aziz Baara nekkoon itam doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke bu mag ginnaaw sëriñ Abdul Aziz Baara tax na itam ci atum 1953 bi sëriñ Abdul Aziz Baara baara demee màkkatal mu karamata àndoon ak magam ji sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ci màggaluk cheikh mamadou lamin baara mbàkke googu ci at moom sëriñ abdul karim mbàkke mii sax la cheikh abdul aziz baara waxoon mu màggal màggal gi booba nag màggaluk cheikh mamadou lamin baara mbàkke ñi ngi koy màggal ci benn fanu tabaski ndax kat ci benn fanu tabaski la cheikh mamadou lamin baara mbàkke génn àdduna te itam ci bis boobu lañ ko daa màggal ci atum 1953 sëriñ abdul aziz baara waxoon na sëriñ abdul karim mbàkke mu màggal màggal gi ndax moom dafa dem màkkatal mukarama kon sëriñ abdul aziz baara màggal na benn yoon màggaluk mbàkke kajoor ci xilaaf ak sëriñ abdul aziz baara màggal na ko nag ci atum 1953 ci dëkk bii ko sëriñ muudu baara bàyyi woon di tay siir ndax màggaluk cheikh mamadou lamine baara mbàkke kat ci dëkk boobu di tay siir lañ ko daa màggale ci benn fanu tabaski kon laataa sëriñ abdul aziz baara di ko yóbbu mbàkke kajoor sëriñ abdul karim mbàkke màggal na ko ci tay siir googu benn yoon ci 1953 mooy bi sëriñ abdul aziz baara demee màkkatal mukarama mukarrama mu wéy nag topp ci ginnaaw magam di ko xoole cheikh mamadou lamine baara mbàkke nekkitim jëwriñam sus rëkkitim ci moom noonee mu nekkee woon jëwriñu magam di sëriñ abdul aziz baara itam ni la fonke woon ay rakkam bëgg googu mu bëggoon ay magam ak ay rakkam tax na itam mu am ay turandoo yu bare bare bari ci ëttub cheikh mamadou lamine baara mbàkke boobu ndax sëriñ abdul aziz baara itam tudde na ko doom ndax sëriñ abdul karim mbàkke bu sëriñ abdul aziz baara mi ngi fi moo toog sax toogaayu sëriñ abdul aziz baara sëriñ abdul karim mbàkke lañ ko tudde sëriñ abdul xad Xaadim Mbàkke bu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke itam tudde na ko doom ndax sëriñ Abdul Karim Mbàkke bu sëriñ Abdul Xaadim Mbàkke bu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke mi ngi fii Cheikh Abdul Ahad Mbàkke bu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke itam tudde na ko doom ndax sëriñ Abdul Karim Mbàkke bu Cheikh Abdul Ahad Baara Mbàkke mi ngi fii sëriñ Basiiru Mbàkke Xujja moom tudde na ko ñetti yoon doom ndax da koo njëkk a tudde ñaari yoon doom ñaari ñoo ñu génn àdduna mu tuddewaat ko kaneen kon sëriñ Abdul Karim Mbàkke bu sëriñ Basiiru Mbàkke Xujja mi ngi fii di ñetteelu turandoo bopp sëriñ abdul karim mbàkke sëriñ amar faal mbàkke bu cheikh mamadou lamine baara mbàkke itam tudde na ko doom ndax sëriñ abdul karim mbàkke bu sëriñ amar faal mbàkke mi ngi fi sëriñ xaadim awa ba bu cheikh mamadou lamine baara mbàkke itam tudde na ko doom ndax sëriñ abdul karim mbàkke bu sëriñ xaadim awa ba mi ngi fi sëriñ moodu aycha bu cheikh mamadou lamine baara mbàkke itam tudde na ko doom ndax sëriñ abdul karim mbàkke bu sëriñ moodu aycha bu cheikh mamadou lamine baara mbàkke mi di doomu sëriñ moodu baara mbàkke mi njëkk njëkk a wuutu cheikh mamadou lamine baara mbàkke itam tudde na ko doom ndax sëriñ abdul karim mbàkke bu sëriñ xaadim muudu baara mbàkke mi ngi fi te sëriñ abdul karim mbàkke ibnu cheikh mamadou lamine baara mbàkke lañ ko tuddee ak ñeneen ñeneen ak ñu ko tudde doom ci guy mbind googu ku amoon kóllëre la ak ay magam ak ay rakkam ba tax na sëriñ abdul karim mbàkke yi bari na lool ci guy mbind te lépp nag sëriñ abdul karim mbàkke ibnu cheikh mamadou lamine baara mbàkke lañ leen fayee wala kañ leen tuddee moom lañ ko tuddee moom sëriñ abdul karim mbàkke itam noonu ko ay rakkam ak ay magam tuddee doom moom itam noonu la leen fayee ndax kii di sëriñ cheikh mareem kebe bu cheikh mamadou lamin baara mbàkke sëriñ abdul karim mbàkke tudde na ko doom ndax sëriñ cheikh mareem mi ngi fi te sëriñ cheikh mareem kebe ibnu cheikh mamadou lamin baara mbàkke la ko tuddee sëriñ mouhamadou yaddaali mbàkke bu cheikh mamadou lamin baara mbàkke moom itam tudde na ko doom ndax sëriñ mouhamadou yaddaali mbàkke bu sëriñ abdul karim mbàkke mi ngi fi soxna fatja mbàkke bintu sëriñ tuuba seexul xaddim sëriñ abdul karim mbàkke itam wóllëreem la woon ba tax na itam tudde na ko doom soxna Fatja Mbàkke bu sëriñ Abdul Karim Mbàkke mi ngi fi waajuram cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke sëriñ Abdul Karim Mbàkke itam tudde na ko doom ndax cheikh Baara Abdul Karim Mbàkke mi ko wuutu sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke mi waajuram la ko fayee ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñum bokkal waajur ñum tudde doom kon sëriñ Abdul Karim Mbàkke ku fonkoon ay magam la ak ay rakkam ndax cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke mooy seen waajur sëriñ Abdou Karim Mbàkke nag ku daa tukki nag la ci biir réew mi ak bitim réew ndax daana nekk itam ci dëkk bi di ndakaaru daana nekk itam ci dëkk bii di Saint-Louis daana tukki itam ci Afrique ci Mali ak Côte d'Ivoire kon ci réew yi moom daana fa dem lu bare bari di seeti taalibe yi ak di leen nemmeeku ngir jëmmi na xaadim rasuul ji sëriñ Abdou Karim Mbàkke nag mi ngi génn adduna ci feebar bu ko tëral ci dëkk boobu di ndakaaru ci hôpital principal bu ndakaaru ci bëccëgug talaata fukki waxtu ci yoor yoor bëccëgug talaata googu fukki waxtu ca yoor yoor lor moo dëppoo woon talaata ñaar fukki fan ci weeru rajab ci atum 1390 ci gàddaay gi talaata ñaar fukki fan ci weeru rajab ci atum 1390 ci gàddaay gi dëppoo muy mardi 22 septembre 1970 mardi 22 septembre 1970 la sëriñ Abdul Karim Mbàkke nag génn àdduna ci 10 ci suba ci hôpital principal bu ndakaaru ci xilaaf ak magam sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke mi toogoon toogaayu Cheikh Mamadou Lamine Baara Baara Mbàkke ak ci xilaaf ak maamam sëriñ Abdul Lahat Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ginnaaw bu mu génnee àdduna nag ci ndakaaru ci bisub talaata boobu ca alxemes ja nag lañ ko jébbal boroomam ci armeel yu mag yi ci wetu waajuram wa cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke cheikh Abdul Xaadir Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim moo ko taxawu ci bëccëgug alxemis di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru rajab ci atum 1390 ci gàddaay gi alxemis ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru rajab ci atum 1390 ci gàddaay gi dëppook muy jeudi 24 septembre 1970 jeudi 24 septembre 1970 lañ ko jébbal boroomam ci armeer yu mag yi ci teewaayu nag ki ko taxawu jullee ko di cheikh Abdul Xaadir Mbàkke ibnu Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ak ci mbooleem njabootuk cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ji ay xalifaam nag nii la tëdd ci atum 1970 ba nëgëni kam faye waajuram wa di cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ñu koy wax cheikh Baara Mbàkke bu Sëriñ Abdul Karim Mbàkke moo ko wuutu ci atum 1970 ba nëgëni ñu koy ñaanal moom sëriñ cheikh baara bu sëriñ abdul karim mbàkke mi toog toogaayu sëriñ abdul karim mbàkke yàlla na suñ boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu sëriñ abdul karim mbàkke te guddal nag fanu mbooleem rakkami ak nag ñim séqal sëriñ abdul karim mbàkke moo xam jarbaat sët ak taalibe ak turandooy sëriñ abdul karim mbàkke yi ak soppe yi sëriñ abdul karim mbàkke nag ibnu cheikh mamadou lamine baara mbàkke nag am na bés buñ koy fàttaliku ci atum muy ginnaaw bu mu génnee àdduna ba ca déwén sa la sëriñ abdul aziz baara mbàkke mi toogoon toogaayu cheikh mamadou lamine baara mbàkke foboon rakku sëriñ abdul karim mbàkke bi ñuy wax cheikh abdul lahad baara mbàkke ngir muy taxawu magam jooju di sëriñ abdul karim mbàkke ci dëkk boobu sëriñ abdul karim mbàkke nekkoon di mbàkke njokk màggal gi nag màggal nañ ko ci dëkk boobu ba ci atum 1990 ci atum 1990 boobu nag la fi cheikh abdul lahad baara mbàkke bu cheikh mamadou lamine baara mbàkke génn àdduna njabootu sëriñ abdul karim mbàkke nag doog a tàmbalee màggal seen waajur wa ndax bu njëkk rakku sëriñ abdul karim mbàkke bii ñuy wax cheikh abdoulahat baara moo doon màggal màggal gi ci ndigalul seen mag ja sëriñ abdul aziz baara ci dëkk boobu nag di mbàkke njokk ci 1990 nag la taawu sëriñ abdul karim mbàkke bi tàmbalee màggal màggal gi di cheikh baara mbàkke bu sëriñ abdul karim mbàkke ci dëkk bu sell bii nag di tuubaa ci kër giñ jagleel cheikh abdul karim mbàkke ci guy mbind ci atum 1971 ba nëgëni nag ci ñaar fukki fani rajab bis sëriñ abdul karim mbàkke génnoon àdduna ci lañ màggal ñuy ñaan ci doomu cheikh mamadou lamine baara mbàkke ja kam tudde woon abdul karim mbàkke na ñu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal nag fanu njabootam gim fi bàyyi ci darajay seen maam ja xaadim rasuul lii di jafe-jafey réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajay abdul karim amin abdul karim amin